alhamdulilahi hamda rabbil maabudi bi xaqi rububiyati alxaalisati bi hadrati lhaahud hamdan yaliqu bi jalaali wa azamati habibi wa ruuxi qalbi almufradi fi kulli lisaan wa huwa allahu rahmaanu rahim wasalaatu wasalaamu ala ibaadihi lazina stafa wa baad fattaahu wahaabu yaa rasaaqu yaa maliki deftaa wahabliya warsuqni bi kunil aana dayqi azil aajilan bil bishri maa maradin xataa uqiima li diinillaahi arkaana yasiru jooci li tuuba waxmini waqini adal waraa وتتب لسما إسكانا لك السماء والأراضي والهواء بلا مشارك ليروط مشيكه بنا أجب وسل بسليم على سنة محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñi nuyu ñëpp di ko dale ci sëñ Sidul Muxtaar yàlla na ko yàlla eggal téwél ko ah di ca teg sëñ Cheikh Bombay li nga xam ne mooy xalifa si sëñ Mbàkke Madina di ca teg sëñ Cerun Faalo mi nga xam ne mooy xalifa sëñ sëñ Manaar te xalifa kër Madam gépp ak sëñ Mor Talla Diop mi nga xam ne mooy xalifa sëñ Mor Diop njëkk yàlla leen suñu boom dëgëral ba lañ bëgg a liggéey seen maam njëkk seen wujur yi lépp suñu boom matali ko xam naa di ci ndokkeel ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy siraan fu ñu mën di nekk ci ci àdduna xam naa di di ndokkeel it di ndokkeel it nag Modou Diop ci Italie mi nga xam ne Modou Diop Italie laa koy woowee dëkk Touba gii nga xamante ne moo sakku ci man maanaam ñu ñu defal ko émission bi ngir mu mu jëriñ ci ci ci ci xeet wi xam naa li ñu war a waxtaane lu lu rëy la lu lu foor la li ñu war a waxtaane mooy tërbiya tërbiya ruuxiya la ñu war a waxtaane xamante ne mooy tërbiya nit ba mu àgg ci ci ci ci suñu borom waxkat yu bari ñu ngi ciy wax ci jamono jii nga xamante ne kon sëñ Tuubaa wàllam ci loola kon mat naa leeral ba ñi nga xamante ne ñoo ko déglu di déglu mbindam di gëstu ay waxam ñu xam Sëñ Tuubaa mu moom fan la ci féete maanaam yéeg jëm ci ci ci ci suñu borom dafa jafe lool ndax Sëñ Tuubaa caa wax jëkk jëkk mu cay wax ku ñuy wax abul fayd zunun al almisri yi muy deux cent quarante cinq ci gàddaay gi wax ca moom it lu am solo daal di ne day wax yi yëpp day ñeent rek lay ci lay wër ñu ne ko ban la mu ne xubbul jalil wa rida bil qalil wa tibai tanzil wa xawfi tahwil nee na nee na day li li nga xamante ne mooy wax yi mooy sopp borom bi xubbul jalil nag mooy sopp ko ki nga xam ne yaa ngi koy jaare ci lu metti warida bil xalil mooy nga doy lool lu néew nga topp nee na nit uti waxu tansiir mooy nga topp li alxuraan wax waxaw fa taxwiil mooy waxtu wu nekk ngay ragal ne yàlla bu sama mbir soppiku jëm ci safaan ba mooy daal ragal sa sa sa bopp sëñ Tuubaa kon la mam fa sambo ci raximahullaa waxoon ne sëñ bi ne woon leen ñoom waa barsàqee kat yéen ngi jëm ci jamono joo xam ne yet dafay tax a mucc jekki noppi ay yéen dafay tax a mucc jekki noppi liggéey loo am doy la ko kon kon xam naa ko kon mooy loola sëñ bi waxaat bind ni kat waman bi mahmahi tasawufi nazal bi xayri musaaxabati cheikhin xat kamul fa innahu yaxuudu fi baxri rada wala yajiu minhu cheyun abada nee na képp koo xam ne dangaa jóg jëm ci yàlla te amoo te àndoog sëriñ boo xam ne mat nab sëriñ nee na day na nga yaa ngi xuus ci géejug alkande te doo ca jële dara loola kon yaakaar naa li li nga xam ne kenn ci sang su baax sa muy sëyi di roy ma bokkoon ca waa Baxdaad ya ba tey 303 ci gaddaay gi dafa waxoon lu am solo dafa waxoon ne kat doxub tawxid boobu nga xam ne mooy doxub mag ñi mooy maxwu athaaril bashariyati wa tajarudul uluhiya wax ju tënku la nee na mooy maanaam ci nga far sag nite ci féslu gi nga xam ne moom la suñu borom di féslu ci lépp xam ne nga xam ne da ngay da ngay teewlu suñu borom ba duutoo gis sa sa sa bopp yaakaar naa loolu buñ buñ teewloo ca Cheikh Mouhamadul Basir ci ca Minanul Baaxadim la mu waxoon ca ne sëñ Cheikh Fall nettali na ko ne ko loolu la waxoon suñ mag bi keroog ba muy jublu ci ci moom dama bëgg sëriñ boo xamante ne yàlla ni mu feesloo ci moom damay faral nite ga xane man du du ma gis nite ga ne ko it su ma fekkoon ba mel la mu képp ci kaw suuf de mu doy ma danaa ci am la daa bëgg sëñ bi ne ko ah waaw yow de jee nga ak man pas-pas ndax man day sallallahu alayhi wa sallama su ma feggatoon lenn lu may suuf si nga xam ne wóor na ma cëng ne ma ci la daa dëgg asamaan si nga xam ne biddiw yi nga xam ne ñoo ko ñoo ko daa tiim loolu dong day bu doon fekkoon naa ko fi dana ma doy ba danaa am ci moom li nga bëgg waaye ñooñu nag ay mbër lañ ñoo xamante ne maanaam dimension yi yañ toll sori na xocc yi nga xam ne toll toll nañ fa moo tax ñu ñu mën a doxe noona waaye bu dee koo xamante ne sa yitte agul fa fa Sëñ Tuubaa ne woon na kat tëbbu ci ku fi nekkul mooy koo xam ne dafa génn àdduna loolu nee na borom jiitu dëgg moo ko man mooy ñu mel noonu moom ak serfal noonu ñu ko doon waxe waaye koo xam ne yow amoo yitte jooja da ngay tëbbu ci maanaam kuy dund maam Cerno Birahim ci waxoon ne loxob góor ci ci loxob góor ba ci ba ci su suñu borom loolu loolu mooy kon ak yàlla la kon sëñ bi nag wax waxaat ci masaalik daal ne wala sa tax tawil wusula lil jalil bi xayri xatanil aqabaat yaana bi yow yow day kii ne dangaa jóg soobu ci ngir ma nee na day doo am li nga bëgg feeg feeg jéggiwoo pakk yi obstacle yi waaye mu jëkkoon a wax naan ci mu waxoon feneen ne ci ci man tajarada li xidmatil jalil xabla taallumin wa xumrun laa nabil képp koo xam ne dangaa jóg soobu ci ne damay soobu ci ci suñu borom dama koy wuti te ne jàngoo maa jàngoo tasawuf jàngoo fiq jàngoo tawxiid nee na kooku day dof la dof la ndax moom maanaam du du du am dara ndax si seytaane yi ñoo koy foyee loola kon aqabaat yooyu pakk yooyu moom moom lañ bëgg a waxtaane kon ci waxtaan wi nga xamante ne mooy tërbiyee gi dëgg ñu ngi ko tuddee alxujubul manduriya ba ca ba ca jëkk kiiraay yi nga xam ne nit ki xujubul manduriya mooy kiiraay yi nga xam ne nit ki moom lay gis ci kanamam bu dee mi ngi dox loola nag ba nga xamante ne moo ca jëkk mooy maanaam al wujudul al muntawi mooy kat maanaam léegi li nga xamante ne moo làqutu ci ci yow mooy al alamu nafsaani lil kaa in xewaan yi sa bopp li ci sa biir loola kiiraay la alxuraan dafa wax ne wa nafsin wa ma sawaaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha nit nit ki day maa ko tabax tabax ci moom lu baax ak safaanu baax ñu ne nag suñu doom ginnaaw fujur la jëkk tudd te mooy loo xam ne day ballu muy caay-caay koo xam ne day ballu ci nit ki kon mën naa am kon moo moo ëpp ci moom moo tax ñu wax ne suufiyanke boo gis wala wali yu boo gis ab seytaane moo boof ca biiram xam ne moom lay xeexal la lay tubi alayhi salaatu wasalaam waxoon waxoon sahabi bi ne ko alayka bi xuwaysati nafsika ay waay yow yow day fexeel sa bopp rek sa bopp rek loola kon bu ñu bëggee xool kiiraay yooyu ñu ñu ñu jëkkee ci ñu ñu seet escalier taswiya maanaam naka la sun boom tabaxee nit dañuy wax ne kat alamul arwaax aw alamul ahdi wal mithaq nit ki bi ñu nekkee ay ruu rek sun borom waxoon wa id axada rabbuka min bani aadama min duhurihim ba ca ba ay jeex sun borom di di wax ne man day damaa jëloon ruu yi pang leen woo leen fa man ca ab xadra ma woo leen wax wax leen daal leen di seedaloo ne leen man de am naa maa ngi nii ñu ne ñu ne ëskay am na waaw ma ne ndax muuma leen ñu ne ma ah kay ma ne dama bañ kat su su bis pencee ngeen wax ne kat fàtte woon nañ loola wala ngeen wax ne kat suñuy bàyyi dañ ñoo ñoo jàddoon yoon waa ñu topp ca ñoom di ay seenu nu njaboot su suñu boom suñu boom kon kon mi ngi tënk foofu maanaam bindiin wu jëkk wa buñ jógee ci xaalamul arwaax jóge jëm ci xaalam mu darra xaalam mu darra kon róogi dugg na ci jëmm ndax suñu borom wut na suuf min turaabin wut na suuf daal koy la def ci ndox daal daal mu muy rembi rembi mu nekk tiin tiin tiinu lazib mu lakk ko muy masnuun mu ñu weer ba ba mu wow mu nekk sal saalin kalfaxaar maanaa nga xamante ne maanaa soo ko fëggee muy koŋ koŋ yi mel ne ndaa jaala mu naf suñu borom daal di ëf ca jëmm jooje sikkiram ba muy ruu ñu ne ruu de moom bokkul ci ci matière du matière moo tax ruu du du dee waaye nafsu maanaa danañ ci dikk lay dee lu mu doon naf xu ruu bi daal di ñëw jëmm daal di taxaw maanaa léegi ñu ñu tàmbalee ci mën yu tàmbalee ci ci lumbu deret tàmbalee ci aw suux tabax ba daal di taxawaat maanaam keneen da daal di judduwaat ba ca topp kon mooy nit nag bi mu taxawee nit nit nit ñu ne ah kon de moom mi mi ngi mi mi ngi tëggoo ci annaasuut ak allahut xay dal juddu maanaa léegi nit ki mi mi ngi tënkoo ci maanaam ban ba ak ruu gi nga xam ne jugewul fii ma nga jóge ca ca ca sun borom loola dal di indi ak dund bi bi bi nga xam ne ñaar yooyu ànd nañ du matière ba jasad bi daal di soppali ko ko ko aw yaram muy dund ñu ne alxayat al'uduwiya an nafs dal di juddu nafs bakkan mooy danañ ko leeral bakkan mooy li nga xamante ne kat mooy soxla wool yaram wi li nga xamante ne yaram wi bëggee dara moom lay waxal moo wax ak ruu ruu daal di joxe ndigal loola alwahyul mashub daal di daal daal di dikk ginnaaw nit ki tënkoo na noonu alwahyul mashub dikk mooy maanaa kat nit li nga xamante ne mooy lënt ci moom ndax jëmm ji ak ak ruu gi bu ñu àndee faaw jëmm ji matière bi dana lëndëmal ruu gi loolu loolu bi ñu tullation ñëw maanaam con li ñuy tuddee conscience alwax yul ci xaalis am na mooy su mooy mooy nit ki kat yëg gi mu yëg nga xamante ne ci ruu gi mooy yëg boppam ak di yëg yi nga xamante ne moom la dendal yooya soo ko bëggee leeral am na feneen foo xamante ne leeral loolu naa ko fa di wax ruukat moom doo nga am ci waaye bi ruu amee nag am na ñetti fonction wala ñetti mouvement yoo xam ne am na ko benn bi mu ngi tudd alxarakatul istidlaliya mooy xel ruu gi bu nekkee ci jëmm ji yëngu na ne waaw man day nekk naa ci dara ñu ne ko waaw am nga day maanaam ab xaalab am nga am na ab mool bu bone ci biiram mu ne mool bi de dafa mel ne am na fu mu ne am na ab dig digal environnement ñu ne waaw mu ne environnement bi de moom laa bëgg bëgg nga xam yaram wi di di jonjonte ak environnement ba di bëgg a xam li environnement bi wundu ak li nga xam ne moom la làmboo ba ca topp mooy alxarakatul xaddisiya nga xamante ne mooy ruu gi di wax ak boppam loolu ak di wax ak wala di jéem a découvrir boppam ak ak di jéem a découvrir ñi nga xam ne ñoom la ñural moom mooy lu mel ne malaaka yi ak yu mel noonu loola ñu ñu tudde ko xol xol nga xamante ne léegi xolkat waaye ju jubluwuñ ci nag lum woowu wala boo ko suux woowu nekk ci dënd bi waaye dëgg dëgg mooy ab secret la ñu ko imaamul Xasaali waxee al al alxaraka shahawiya muy njëdikk ba beneen mouvement ruu ñëw nga xamante ne mooy ruu gi maanaa léegi day jéem a yëngu di jéem a xam maanaa matière bi mu nekk jëmm ji mu nekk mool bi mu nekk ak it mool bi loolu lu ko fay taxane maanaam éléments yi nga xam ne ñooy tax mool jëmm ji ne fi saa su manqué li nga xamante ne moom lay soxla woo mu wax ko bakkan nafsu ndax dafa nafsu moo nekk ci diggante diggante ruu ak yaram maanaam naa léegi su ko ko waxee nafsu su daal di koy wax ruu ne ne ko moom day soxla la nangam ruu ne ne xel kon kat digalal digalal jëmm ji nekkoon na def nangam. loolu ay yëf la yoo xamante ne yu yu xóot la waaye yooya maanaam bokk na ci li lay xamal jafe-jafe maanaam tërbiye wu dëgg dëgg ba ca topp kon mooy al wujudul al al mandur yi mooy nit ki monde bi nga xam ne moo nekk ci ci biti mu di ko gis di ko làmb di ko daj di joñoon teeg moom loola day moom. maanaam yaram wi nga xamante ne moo ëmb ruu gi nga xamante ne dafa dafa kimtaane lool ndax ndax lépp looy xam ci àdduna bu dee tàng saw suuxa tàng bu dee sedd saw suuxa sedd bu dee dafa dëgër sa saw yaxa dëgër nit ki mënut a xam lu lu may boppam waaye àdduna bi ci ci xamee su ko waaye sun borom moo jël moo jël programme mu àdduna bi def ko ci programme mu jëmm ji moo moo tax kenn ci ñoom waxoon ne fii kan tawal alamul akbar yow nit ki de xanaa xamoo ne ci ay àdduna bi kon jërul nga ci nga naan xam ci ci àdduna bi kon foofu fu kon soo bëggee nag yow génn ci maanaam léegi monde boobu nga xam ne ne léegi boo dee xool yu rafet yi di xoy-xoy yi bari lool jamono ju nekk nit ki mi ngi mi ngi créer lu bees loo xam ne ci ay xaatam la koy génne nga nga xam ne moom amu ci amu ci bitti waaye ci ci moom lay jógee génn ci bitti muy ay yére ay mbubb ay dàll ak lu mën doon otoog loolu mën di doon ay kër loolu lépp suñuy xaar la waaye adduna bi moom maanaam loolu amu fi woon kon nun ñu ñooy ñooy soppandiku ci ci bitti bi ñooy fëslu ñooy def maa li ñu tuddee transcendalisme di génn ci bitti waaye adduna bi moom maanaam dara niw foon loo xamante ne taaru na mbaa dara na kon nun ñoo taaru bu dee ñaaw am na adduna bi muy matière moo moo ñaaw kon nun ñoo war a rafetal adduna bi waaye nit ki nag bu toppee nag ne day rafetal adduna bi di xoy xoy xoy bu nekk mu indi ko boo yeexee dana fàttewaat ne ruu moom gi nga xam ne moom la waroon na gën a defar ndax alxuraan moo waxoon ne kat ba mu xëy ne tabaxee naa nit noonu ci lu baax ci lu bon laa ko mooñe mu ne waaye xad xad aflaha man zakkaha ki ki taxe dëgg nag mooy ki nga xam ne mooy jéem a raxas tër boobu nga xam ne moom laa bindaaleeg moom waaye waxada xaaba man dasaha waaye nag toox na koo xam ne moom dafa jóg moom di yokk maanaam mbuma ab tër kon loolu li la koy may mooy nga jëfandikoo lu ñu tuddee almamnoo mamnoo nag mooy chadbul wujudil wax bii bi mim xaatil wujudil xaqaani wa huwa amrun yaalamu ahlu mooy yow kat ci nga far adduna bi ngay gis ci say bët ak di ko yëg ci saw yaram nga ci nga far ko ci teewlu dëgg dëggu amu yàlla gi boo ko teewloo ndax maanaam dee rek koo koy teewlu yu bari duutu neex maanaam ci ci ci yow saa bu tiimoon la nga gën a fonk bu bu dee te teewee fi yow da nga ko fàtte kon kon nag nit ki nga xam ne dafa xuus ci maanaam matière xam ne yi nga matière waxtu wu nekk mi ngi féslu di indi ay ay ay démonstration yu bees tàq yoo xamante ne suñu borom moo ko moo ko bindee noonu suñu suñu xel yi di ko ballalu di ko sànni ci matière matière di di di soppiku kooka day ko moom day mujj doon ki nga xam ne moom la suñu doom di wax naa ko di ko kokkali naa ko ya'lamuuna zaahiran min al-hayaati dunya wa hum anil aaxirati hum xaafiluun ñoom day xam nañ bitub adduna bi waaye ñoom day alaaxira yi nga xam ne adduna ab tool la woon ñu war faa bay te sëñ Sow waxoon ne adduna day moom moom mooy tool bi ñuy bayee dundub ëllëg kon kooka moom fàtte alaaxira yi nga xam ne mooy finalité ba waaye jo jotu ne adduna na rek jërëk kay dara. kon noonu nit ki mel saa su doxee noonu xam ne am na ci am na ci ñoo xam ne sax dañuy jëfandikoo nag tur yàlla am ñu jëfandikoo lasraar wala boog tur jinne su su dee waa ji day day jëfandikoo lu mu mën di doon ca ñaar yooyee ci waaye nag misaal bi muy jëfandikoo tur yàlla dem na ba nga dem na ba nga xamante ne mi ngi bëgg am fatxu xam nga neewoon nañ la kat yow maanaa léegi adduna bi ngay gis nekkul sa finalité waaye boo ne ca ca ca jàkk di ca xool ñu jox tàmbali laa jox ci kas fu ngay xam diw diw kañ lay juddu diw kañ lay faatu diw lu muy am lu muy ñàkk di xam mbiri mbiri gaa yi boo yexee boo ne ca jàkk nag suñu boom daal di wàcc waat kiiraay ne ne waaji di kon taxuma ma ko jóg waaye moom yooyu muy gis moo ko tax a jóg kooku nag daal di ñu tuddi ko alfatxu abdurmani yi xam ne moom léegi fatxu abdurmani yi wala samadani yi moom moom amu ko ki nga xam ne day jëfandikoo ay lasraar wala muy jëfandikoo ay jinne moom it dana dem ba ba mën a xam yu bari mën a soppandiku sax ni ko ibnu taymiya ci rahimullah di waxee naan awliya u rahman ak awliya u cheytaan awliya u cheytaan li awliya u rahman di di man di soppandiku nga xamante ne sunu maam yu njëkk ya xam ne boobay dugguñ ci diine daanañ wax ne daanañ poñe yàlla ci ci ñoom nañ koy waxee nekkat yàlla tawal mu taw maa xam ne neex na la naqari na la day taw suñu boom jëy leen ba mu taw ñu yaakaar nekkat ñoom dañ ko poñe fekk ne déedéet loolu istidraaj la loola it ki nga xam ne day jëfandikoo turu jinne mbaa turu turu ci yàlla woo xam ne da koo jëmee ci adduna kese ji lool loola mën na ko ca caa indil lu mu wax mu am fekk ne kat duxut ba ca ba ca topp nga xamante ne moo ci gën a yéeme mooy al al wujudul mastur yi maanaam léegi xam nga ju ñu jóge nañ ci sa bakkan maanaam yow yow jëmm ji sa biir ak sa bitti muy muy adduna bi ci bitti ak nag léegi ñu jëm nag ci roogi nag roogi al al al wujudul mastur yi wa huwa al aalamul maawaraa yi li zawaat al mufaariqa foofu fu dansé la. roo gi ak ay kem ay kemam malaaka yeeg yooyu maanaa ki nga xam ne mooy sóobu jëm ci ci sunu borom maanaa léegi dana gis ci ruwam ay mbir yoo xam ne yu kiimtaan la yoo xamante ne sax maanaa mëne su ko misaal nga xamante ne ay ay ay ruu yoo xam ne leer lañ kenn ku nekk nekk ci sa xadra nekk ci sa charia boo xam ne ay ay luwaay yoo xam ne moo lay mu mu muy at te foofa kooka nag kooka nag su manqué contrôle ci boppam daal di gis yooyee tàmbali ko roy su boobaa nag day daal di génn ci ak ak nité misaal am na kenn ci gaa yu baax yi al imaamul al mawlawi moo xam ne mooy cheikh bu tarixal al mawlawi nee ñu dafa mas di dox ci marché bi jabi ba ci yàgg mu gis mu téen seen waa malaayika yee benn xadra boo xam ne ña ngay maanaa sikkar ña ngay tas seen sabal ya di maanaa naa ming moom it mu di ko seetaan ba ci àgg for muy ming te teyetu ko ay dongaam toppandoo ko ca ba léegi gis yi seenu phénomène la boo xamante ne moom noonu la ñuy def buñ buñ dee sikkar dañuy ming te te fekk ne maanaam loola nekkul ngir nit ñi loola ngir ab xadra la boo xamante ne yenn ci malaaka yi ñooy sabale seen seen borom noona kooku nag bu bu doxee noona maanaam su amul ndimbal maanaa léegi soo yeexee day fàtte for nit ñi fàtte adduna ne jàkk ca loola boo boo yeexee kon nit ñi ñoom it génne ko ci seen bopp moo tax Cheikh Abou Madiana Alqaws mu dëkkoon Algérie dalaa wax naan man de soo bëggee yóbbu sama donga ca pays ba duma ko jaarale malakut bu jógee mulkut damay koy jëlal malakut ndax ndax damay bañ mu sàggan di di xool kiimtaan yi ca fa ne te te loola mën na koo xañ màgg ci borom bi am na beneen beneen beneen xaalam boo xam ne moom it moo gën a moo gën a kiimtaane mooy al alwujudul maknuni te mooy alwujudul xaqaani aw aalamul maxwi wal aljabri mutlaq nga xam ne ko daal ma nga ne mooy aalamul jabarut xamante ne maanaa foofa moom kiiraay ba moo gën a tal foofa nit ki wala ki kii soobu ci ci ci sun sun boom day seey ñàkk boppam nga xamante ne su boobaa sun boom ci boppam mooy mooy fenkat ci ci moom mooy fenkat ci ay ay li lim yeeram ba nga xamante ne su boobaa kooka duutu mën a dikkaat ci nit ñi lu may ne sun borom a ko dimbale nga xam ne su boobaa maanaam li ñu tuddee muhaadara ak mukaalam ak mujahada ak ay mbir yoo xamante ne gaa yi xam loola kon boo soo xoolee ci ci ci yooyu da nga ne ah kon day kon tëy bi wu day kon moom maanaam kon moom kat jafe na lool ñu ne ñu ne ñu ne waaw ñu ne kon day ah sëñ Tuubaa day moom xoqa ñu ko sëñ Mat Saxir Mbay waxoon sëñ Samba Yama nee na sëñ Mat Saxir Mbay bàyyam ba wujur mu tëdd ba nee na nee na day xoqa mën na sëriñ sëñ Tuubaa lu wax ci ci xoqa da dafa wax ne. kullun min alqawmi aalimun wariun minhum murabbin bi adkaarin wa xaalaati minhum muraqin bi xaalin waxdaha abada minhum murabbin muraqin bil ishaarati nee na day góor yàlla yi day ñoom am na ci waaw ñoom day ñoom koo ci gis ci ci ñoom dafa sàmm muy lu jafe sàmm jafe na lool nga xamante ne ndax si Sëñ Tuubaa ne woon na ca xutba ay day nii ba neewoon na sàmm day mooy tarakumaala ba sa bihi xadaran lima bihi bas mooy kat da ngay bàyyi sax bay bàyyi loo xam ne sax dagal na la ngir ragal ne kat dafa jege lañ la tere loolu kon mooy sàmm dëgg-dëgg suñ bi ñoom day góor yàlla yooyu am na ci ñoo xam ne dañuy tërbiyaa ci ay tur yàlla am ñoo xam ne dañuy tërbiyaa ci xaal am ñoo xam ne dañuy tërbiyaa ci xaal képp am ñoo xam ne dañuy boole tur yàlla bi ak xaal bi am koo xam ne moom day tërbiyaa ci ci xaal rek am nañu ku ñoo xam ne moom day tërbiyaa ci ay junj ci ay wax soo xoolee loolu mën nga ni kat ah mag ñi nga xam ne Sëñ Tuubaa tërbiyee woon ci woon na leen ni sëñ bi waxoon na ne kat moom ak doomam yi ak ñim tërbiya ak xaside yi mat nañ ay sëriñ maanaam mat nañ référence ca do ca doxit wa loola soo xoolee kon ñoom day mel ne kon xaal bi ak tur yàlla yi ku mel ne sëñ Saliou ca la ma ca xam daana daana joxe ay tur yàlla sëñ Mourtala daana joxe ay tur yàlla nga xamante ne boole ci nag ak jëmm ji soo ne ko jàkk jëmm ji daal lay doy sëkk nga xamante ne la sëñ Isaa xam ak sëñ Basiru waxoon ma ne ma sëñ Abdul Xaadir day moom ci minbar bi maanaam doy na sëkk ab xutba sëñ Abdul Xaadir taxawul rek bu taxawoon képp ci minbar bi doy na ab ab ab xutba misaal sëñ si sëñ Sidul Muxtaar mii yàlla na ko fi yàlla jàggal te wéral ko soo ne ko jàkk sam xel dem ci yàlla soo ne ko jàkk sama xel dem ci suñu borom te te Sëriñ Tuubaa ne woon na ki nga xam ne mooy tërëxee dëgg waxut ki tërbiye kay ki nga xam ne day day day tërëxee dëgg mooy koo xam ne soo ko gisee mu mu mu yokk la force ci nga mën a dox jëm ci sa sa borom. xam nga Sëriñ Sidul Muxtaar moom ni ko adduna ju jubloo waaye soo demee ba gis ko sa xel du dem ci adduna kon sa xel ci yàlla ku muy dem suñu borom kooka kon moom léegi mu ngi tërbiyaay ci xaal xaw ma ba xam nag. mi ngi mi ngi joxe ay tur yàlla am déet su dee tey ku mel ne sëñ Abdourahmaanum Daarul Mooti soo demee soo xoolee jëmb ja moom it day jëmb ji dana la fàttali si sëñ Tuubaa xamante ne moom soo ko xoolee rek seen xel dem ci sëñ Tuubaa kon moom xaalam rek xaalam rek kon moom mën na laa joxaat force jo jo joxaat la nga dund su borom dund yonent bi dund sëñ Tuubaa kon waaye nag man ma ne ah yaakaar naa day. xaala xaal boobu jomb yombul ndax su ko mel ne si si si si si du mutaar maanaam gis ko gis boo xamante ne da ngay toog fi moom ab diir yombul kon moom la ngay tàng ci ci moom ci ci xaalam mën naa am dana sore. xam naa waaye nag Sëñ Tuubaa mi ngi wax kenn ci gaa yu baax yi ne kat amoon na amoon na dong ci yoo xam ne saa bu ñu demoon demaa dem ba nga xamante ne seen force ci suñu borom. wàññi ko nag dañuy dem seeti kenn ci ci ci gaa yu yu baax yi kooka yu kàll xam naa kon loolu kon si si si si mu tar kon waa ji saa su saa su toogee ab diir mu dem seeti ko. ku mel ne sëñ Abdourahman moom Daarul Moti moom it ginnaaw léegi daanaka day tëju kon moom it di gis ko moom it di tëbboo ci xaalam kon léegi dana néew. kon day mu des kon yaakaar naa kon tur yàlla ak kuy toog ak yow di di la wax ngay dégg. ma ngi wax ji mooy di la wax mag ña fa njaaroon mag ña fa njaaroon mooy kat wa in lam tulaaqi muslihan fal taktafi bi ma bihi nassa xiyaaru salafi wa huwa shariatu nabii Mustafa sallallahu alayhi wa sallam alayhi durufa la mag ñi nekkoon sëñ bi ne kat soo demee ba gisutoo muslih muslih ku baax ki baax na mi ngi nii waaye suñu daanee mooy kii kii baaxale soo demee ba gisutoo ku la mën a baaxal kon na nga na nga delluwaat ci la mag ña nekkoon di waxtaane seen seen taarix yaag seen doxin ya seen melokaan ya kon lu baaxoon la ñuy bindoon melokaan yi mag ñi tënk ko ci téere teg ko ba ba nit ñi mën koo jëfandikoo xam nga xam nga mag ña ñooy ñooy alxuraan bi ñu laajee si Sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha ni ko jikko Yonent bi salaam mooy lan mu ne ah sallallahu alayhi wa sallam de jikkoom mooy alxuraan ndax moom la moom la pratiqué woon ba mu jeex takk sëñ Tuubaa noona gaa yu baax yi yi mu tërbi woon noon noon noona rek kon waxtaane ñooñee nga xam ne fekk gaa yi nga xam ne ñoom toogoon toogoon na ñoom ñooña dund leen ndax waxuma sax théorie bi rek kuy wax rek di nettali si waaye waaye te dundoo ñoom fi ñu toll nii ñuy dundoo nag mag ña gaa yi dundutoon ak mag ña war nañ leen a jege ba dund leen ñoom ñii ba su ëllëgee ñu mën a jàllale ci message ba xam ne génération bu génération bu ne war naa dund ak ku dund ak ku dund ak ku dund ak mag ña tànqa ca ca seen leer yaag ak seen yëg-yëg ya ba ba ba mujj for ay jeexital am ci ñoom xam nga dañ naan sallallahu alayhi wasallam ne woon na xarnu bi gën mooy xarnu bi ma nekk ak ba ca topp noonu noonu mooy xarnu ba dund yonent bi alayhi salaatu wasalaam du dund rek xarnu bu addiya waaye xarnu kii bi dund yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo gën xarnu bi ko dundul nga xam ne si si si si bu dikkee moom daal di tëb dem ca xarnu bu njëkk ba mooy xarnu bu saxaaba ya mooy loolu yitte la kon du du ayat waaye waaye waaye xarnu bu yitte la du xarnu ay ay ayat kon léegi adkaar yi maanaam li gën a yomb mooy ku- kuy toog di di la nettali mag ñi mag ñi ma- ma- mag ñi kon jaar nañ fii jaar nañ fii bi nga bi bi- boobu baax lool waaye nag bi nga xam ne moo gën a am maanaa nag mooy nag azkar yi tur yàlla yi tur yàlla yi maanaa da dafa am ab lënt bu ci am mooy ñu bari dañoo dañoo dañoo yaakaar ne tur yàlla ak ak la saar boobu bokk nañ te fekk na bokkuñu ñoo mel ne nag ñoo bokk ko ndey waaye bokkuñu bàyyi la saar aw turu yàlla la lay jox woo xam ne arab la fekk ne da caa dëxëñ ci ay code yoo xamante ne maanaa léegi la saar nit nit nit nit mën ngaa ñëw fi fi fi moom ne ko man day dama bëgg nga ti- ti- ti- nga jox ma tur yàlla mu jël ab musallas daal di koy tiiree musallas bi mu def ci soxlaa moom tiire ko mu doon ay tur yàlla allahu rahmaan rahim alxayul xayum masalan daal ne la am ko nga dem fekk ne woo maanaa léegi ay soxlaam la def ci biir ab musallas soppili ko ay tur yàlla ne la dee ko wedd li- ab lim sàngam fekk ne soo ko weddee lim sàngam bi yow soxlaam yow yow da nga koy liggéeyal te yow xamoo ko mën naa am bu dee bu bu dee lu ko njur njur ca yu mel noonu kon yow maanaam am na koo xam ne moom fa far moom bu bu boo dikkee naa la waaw tur yàlla di yii di moom ay ci way ndara yaa ngi nii way ndara yi mooy ay lasraar bi dee boo ko defee nangam def nangam la la ca ëpp dana am ay talsam la ca ëpp it talsam moom mën naa baax mooy soo xamee lañ ko tabaxee waaye li ëpp ci talsam maanaa léegi maanaa léegi soxla jàmbur lañ ca lañ ca def wala mu doon ay tur jinne ñaa la sam xaru si nag di- di la wax misaal benn waaye damaa yóbbu ci ku mu wóolu ne ne ne ab sëriñ la boo xam ne daal day day def la saar waaja ma dem fa moom mu tudd mi sax kilifa gu mag dama kilifa googu dax de moom dara ma woo këram nangam nangam man naam dëgg la nag maanaam daal may jox aw- aw tur tur tur woo xam ne du du ma ko tudd ndax boo ko tuddee kon gone gone yi mën nañu ko jëfandikoo tur wa bi ma ko joxee ne ne ma day def ko lim bu gàtt la ma génn daal ne ah sëñ bi ma ne ko sa waaji day jàmbal waaye xam naa daa mel ne li ma jox xamu ko ndax day li ma jox day turu waa ji ma jox mooy bëkk néegub iblis seytaane mooy bëkk néegub juróom-ñeent iblis am na juróom-ñeenti doom yu jigéen ab bëkk néegub so soxna yooyee moom moom la ma jox aw turam ne ma woo ko ma ne ko xam nga kooku soo ko wooyee suu suusee lu muy lu muy defar da lay indil sox doomi jigéen yi iblis yooyee ne la ñu ngi nii soo leen soo soo sëy ak ñoom lépp la bëgg ci àdduna da nga ko am ku ne xam na ne sëñ fa lu mu baax ma am na benn kilifa gu mag nga xam ne borom ci la saar la woon daa ma sa nekk ndakaaru doon def ab autour di ko jëfandikoo ba gis jenn jigéen ju taaru feeñ ko ci hôtel bi def yaram mu neen mu dikk wax ko si Falu ne wax wax ko li mu gis si si Falu ne ko mbaa ànd nga ak moom mu ne ko déet mu ne ko soo àndoon ak moom day su su bis pencee doo ma gis. xam nga kon kooku danger bu mag a mag a mag la seen boobu moom da doon def la saraar waaye jëf jëfandikoo doon tur yàlla. foofu nag kon danger boobu ñi nga xamante ne loolu mooy woote tekat yu bees yi di wax la saraar la ñuy jëfandikoo la saraar ma ma ma ngaa jël. ci mu salas boobu ma la waxoon daal tënk waa ji ab ab ab rawaanam maanaam tasxiir ko maanaam fexe ba forcé ko mu lay jox alalam te du du ko du ko tey bu su tëddee guddi di la gént yaakaar ne gis na dara fekk ne gisul dara xam ne loolu loolu ñu tuddee de xaatif yónnee xaatif ci du sàngam ne ko kat mu mu doon sama jëm fekk ne jinne la bu dikkee ne ko man kat ma nangam ma nangam su bu subaa na nangam dara xew waa ji xëy xëy gis ko yaakaar ne kat dara la fekk ne amut ibnu taymiya ci rahimahullah rek leer na ci lu am solo mu ne waaw ne ah élève doo nga am ne ko man day man day sëñ bi damaa nekk ci àll bi bi ba jaaxle woo la ci ci nga wuyu ma giddi ma mu ne ko mu ne ko déet man sax de dégguma ko waaye suñu borom moo def ci yenn ci jaam ñoo xam ne day na suturaal su ko ab dongaam woowee te kooku amut dégg rek mën koo wuyu am na jinne yu baax yoo xam ne ay ay ay julliñ sun sun boobu day wax jinne ju jege foofa ne ko wuyu ko ci ci kàddoom mu yaakaar ne kookaa waaye loolu nag dëgg rek la ndax Sëriñ Tuubaa ci ci masalik nee na koo xamante ne dangaa aju ci sëriñ bu bat sëñ dëgg-dëgg boo boo ko soree mën na mën na laa wuyu loolu loolu moom Cheikh Moustapha ca njaareem ji amoon na koo xam ne doo nga am bu bu bu mu yónni yónni woon gam bi ay yére maanaam léegi ay piis yi yu mu ko yónni woon kooka dem bay bëgg lab daal di ba ba ba mu yuuxoo ci woo Cheikh Moustapha Cheikh Cheikh Moustapha daal daal di ko koy wallu yëkkati ko teg teg ci ci ci biti ba mu dikkee njaareem fekk Cheikh Moustapha la Cheikh Moustapha soloon ci kii ba moom moom la sol yooyu moom ay ay ay kii yoo xam ne ay ay dégere la waaye nag kon tur yàlla woowu woowu ci woowu nga xamante ne yaa ngi koy wuti dama naan kat ki nga koy jëlee nañ koo xam ne da nga koo wóolu wóolu goo xamante ne soo amoon million géeganoon sa coffre-fort jox ko waaja mu lay gën a wóor def ko ci sa coffre-fort moom mooy daal kon conscience bi daal kon wala sa confiance bi daal kon day nekk fermé xam ne da nga koy da nga koy gëm gëm boo xamante ne bu tegu ci cëslaay la ndax s Sëriñ Tuubaa nee woon na kat nee na nee woon nag koy àndal na na nga ko gëstu ba xam waxtabir rijaala qabla suxba wala tuuti saa ku ma doon aw saraba nee na koy àndal na nga seet ba xam ku mu doon waa ne koo xamante ne moom léegi boppam dongul la bëgg di la teg durul jeex wala koo xamante ne ab dof la Sëñ Tuubaa waxaat na it wala tusaahib xayra man bihi tuzaat diinan wa aqlan abadan tanamuraan képp koy àndal nañ koo xam ne dalay yokku ci am xel wala diine ndax xel mi mooy adduna diine ji mooy ci àllaxira waaye ànd koo xamante ne moom léegi maa yokku la dara sëñ bi nga xam ne kon yow moom nga war a dem ne ko kat ci ci ci tërbiye murid gi mooy Sëñ Tuubaa ni ni daa tërbiya ni ko Sibilem Diop waxee woon ci ci Irwa mooy daa tërbiya ji jàng xasida tun naa jàng alxuraan jàng xasida zikkar ak liggéey liggéey ñaq joxe nee na loolu loolu daa tërbiya gaaye wudul maa xuus wii may manes na cee jaar moom it bu dee am nga suñ boo xam ne da caa am silsila xëy du mun xati an diwoo ko jox diwoo ko jox te kenn ku ne ci ñoom ña ko jox ñu am ca ndigalu jëfe ga ak joxe ga su boobaa yow it aw aw yoon la ngir àgg ci ci su borom waaye nag tur yàlla yi moom moom moom ki nga xam ne dafa bëgg a sóobu àgg ci su suñu borom ah faw nag mu wut aw tur moom tur wi nee naa sëñ Saaliwu ci ci la ma xam daana ko joxe sëñ Murtala moom ci lu ma wër ci nga daana joxe moom tur yàlla nga xamante ne boo boo ci awee yow suñ suñ la day ne fële ci ci ci yow nga nekk fee boo ko doxee da nga dem ba xam ci lu wér soo amee problème maanaam ci ndigal li nga xam ne moom mu barke ndigal li suñu bopp dana dana la wallu jox la ay code ne la kat defal nangam ak ak nangam. lu lu kon moom faaw nga am ci ndigal lu wér cëng ki la ko joxit am ci ndigal lu wér cëng waaye du ne lu ñu jëlee ci ëpp rek di di la ko. ku jox kon waa kon it maanaam wér du ma ko si moom it noonu la ki la koy jox na ci am ndigalul jëfe gi ak ndigalul joxe gi te silsilaam ci Sëñ Tuubaa ba bañ a dog maanaam diwoo ko jox diwoo ko jox ba ca Sëñ Tuubaa misaal Sëñ Lamin Jóob moo joxoon wér du ma xuus moo ko joxoon Sëñ Saliou nga xam ne kon ginnaaw Sëñ Saliou doo bi Sëñ Tuubaa faaw mooy jël mooy am isne ndigal ci kenn mu jox ko ko kooko jox Sëñ Tuubaa jox ko rawatina kon keneen kon moom faaw kon ñu ñu am ci kon ndigal maanaam nag tur yooyu waa ji nga xamante ne day jëfandikoo tur yi mu jóge ci mag ñi faaw nag mu bàyyi xel ne lu mu gën a set sell dox ba gën a gaaw bu dee dafa tilim dox ba day yéex la salaar nag lu mu teg bokk na ci lu mu wuteeg tur yàlla la salaar loo gën a mooy yàlla dox bi gën a gaaw da ngay yor sa sàngara ànd ak jigéen yor yor su tur la salaar di ko werd allah xëy xëyum xëyum malikun samadu misaal di ko jëfandikoo ci la saraar di di naan sàngara di di njaaloo yëf yi neex lool mbooloo mi daal di këpp sa kaw alal ji di lépp lu gën a gis ko fekk ne istidraaj la sa sa nastadrijuhum min haysu laa ya'lamuun maanaam maanaam dañ lay këppatal ndox ko pepp dañoo bëgg seytaane daa bëgg nga gën a nuur maanaam maanaam loolu kon maanaam léegi gii dafa xaw a niroog kee nga xam ne moom léegi ma ngay seetlu seetlu lu lu di di gis yu yu yu wér waaye nag kee moom li li ko taqali bii mooy kat saa su mooyee yàlla mooy ga day feeñ ci maanaam léegi ci ci mbiram moom léegi mu yàlla ji moom jiw ko moom léegi sa nga xam ne moom tey saa bu julliwul tey rek su guddee dana yëg ne kat maanaam kat julli julliwul démb saa su yàqee ci koor gi dara fàtte ko. su doxee tuuti dañ ko xam ne yow de bu sangam de na nga woore woon baaxut saa su amee pas-pasu ci dara boo xamante ne baaxut saa su guddee dañ ko wane ko ah yow de de pas-pas ba nga amoon ci nangam baaxut. misaal damaa mës a toog ci barab dégg ku ko naan inna allaha maana xam ko ku xam ne ko noonu ko su ma waxee am ku dindi tur yàlla bi def ci Sëñ Tuubaa daane daane nangam sëñ Tuubaa nangam mu neex ma lool ma ma ne ko ah waaye yow si biir looloo wax mu waxaat ko ay yoon ndax daal mu neex ma ndax man loolu mosu mu ko dégg ndeke tey seytaane la ma tëdd guddi gént gis imaamu Malik karamallahu wajhahu ak Seydou Moussa bi da nga fee yow Malik toog ci am néeg di di waxtaan naama kat aan aan yu bari daal kii bi sama kul naa ko waaye fàtte naa ko mu naan jont bi day nee na maanaam léegi tur yàlla yi sifaati yàlla yi melokaanam bi di ko di di ko jox kenn day sax maanaam léegi bënut waaye nag li gën mooy bañ ko def ma dugg ci ma dugg ci jàkka ji fekk du sam toog ca sapu jëkk sa Seydou Moussa sa bi doomam nekk nekk nekk ca minbar ba moom it di waxtaan ci tawhid ba ba ma xëyee laaj ci dal di di di génn nga xam ne kon seytaane dafa muus inna laa maana maanaam inna nangam ci nga ne sëñ bi de moom nangam xam nga dafa neex ci amul ku bëgg sëñ Tuubaa yaakaar ne que loolu lu baax la nekkate moom safaan bala kon soo dee yore tur tur yàlla dëgg saa soo demee ba ba bëgg a tarxiis suñu borom dana la lay balal ko ko koo xamante ne mooy téye ci sa loxo waaye nag loolu jëmbut ku ca doxa doxa dox la ba ba dëgër la koo xamante ne nag doxagoo ca ba dëgër lay baax mooy saa soo amee loo yëg gént nga wala nga dégg dara misaal im noire bi xaatim yi dafa ànd ak i dongaam ñu dem ci benn kër ab borom xaalis woo leen togg ab sarax jox leen ko teraanga jox leen ko ne bi noppee rek am benn bool boo xam ne nekk ab potowaas la woon bu bees waa ji bi muy séddale leen ndab yi potowaas bu bees tàq ne fa mu ne ak kii di kon ginnaaw dara demu ko ci kon mën na naa ci def ñam waa ci def ñam jox gaa yi bi ñu lekkee noppi potowaas bi daa leen tàcc ibnu noire bi daal ne waaw ci lu mu wax potowaas bi lan la wax ñu comme day dane gaa yu baax yii day ñoom wii wii day maanaam léegi nekkoon ci man day maanaam léegi su su suñ fi jógee bëggatuma sobe di du dugg ci man mu ne déet li mu wax mooy dane xol yi ñi nga xam ne ñoo doon lekk ci ndab yii day seen xol yi nañ fexe ba bu ñu fi jógee maanaam lu bon ba mu ci tàbbati xam nga diggiinu gaa yu jukkee baax na donga yi lañ digg mooy puraas bi kanam léegi daa bañ sobe duggaat ci ñoo moom ibnu noir bi ne déet xol yi lay wax xol yi la bañ sobe duggaat ci kon diggin woowu jojombul ma ma ngaa am loo gis jàppee ko ku nangam fekk ne kat la nga ko jàppee des na soo demoon ci sën ba ki nga xam ne moo la gën a xam yëf ya dana la ko gën a mën a ci xóotal kon moom maanaam la ca gën kon kon mooy si daa waxoon ne tër bi ya takkoo maanaam kat ki ngay ki la jox tur yàlla wi doo ko sori ci ngeen di di gisee loo nga loo ci xamante ne soxla nga ko nga ko ci loola mu mën la koo wax waaye ci tënk nag maanaam képp koo xamante ne dangaa bëgg a dem tërbiyewu ci tur yàlla te nga ne sëñ Tuubaa nga nga yaakaar këllëm boobu bu ko fi jéggi di seeti beneen muy muy tomb bu am solo ndax ndax saa soo jaxasee yar yëf yi boo yeexee da ngay jékki-jékki da ngay jékki-jékki génn ci yoon wi te doo ko yëg kon moom sëñ Tuubaa kon moom maanaam ndawam lii lépp ngi ci képp koo xamante ne bëgg ngaa am tur yàlla war ngaa mën a am ñoo xamante ne ne ne da nga ko soo demee ci ci ñoom ku mel ne si si Abdourahman mën naa am ku ku mel ne si si Sidu Moxtaar mën naa am da nga ko mën a am xam xam naa kon ci jeexal baaxoon na lool ñi ñi nga xamante ne xam nañ ci lii dara ba noppi doon ay murit ci toolu Sëñ Tuubaa bi ñu ñu fexe ñoom ba ba wut nag ay daara yoo xam ne day doon daaray tërbiya daaray tërbiya nag na ko Sëñ Saaliw waxoon du daaray njàngaan daaray waaye nag njàngaan mën na caa wàll si daaray la joo xam ne dañ fay defar defar nit kon la ca baaxoon mooy xale boo xamante ne daay dikk ne dañ koy tërbiya dañ ko dem jàngale ba noppi soo ko ñëw tërbiya wala mag muy la gën nag mooy mag moo xam ne daa ñëw moom ne daa bëgg a të tërbiyewu ñu ñu xam ne suñ ko waxee mu xam suñ ko joxee tur yàlla mu mën koo jëfee ndax gone gi moom lañ ko lañ ko mënal mooy maanaam faggul ko bu dikkee ne day tërbiyewu suñ baa koy faggul waaye moom mënut a fagg moom bu dee mag mi nag moom moom day faggu ba nag sëñ bi faggul ko kem tulaay pas-pasam ndax ci ci ndax la sëñ bi waxoon rek ka ka ñëw jëbulu ci moom ne quoi bi bi nga ko waxee dégg naa ko soo ko jëfee maanaam léegi gis naa ko maanaam nga jàpp naa mooy kon mag mi nga xam ne moom daay ñëw xam li li li ko andi kon kon kat baaxaw na lool kon yàlla dogal ñu xam ca loola la dara ñu wut nag ay daara yoo xamante ne ci yoon wi daara yoo xam ne day tërbie nit ñi defar leen ba ni ko Sëñ Tuubaa ba bëggee woon mën a am balaa gone yee dem di jiggaani leneen feneen te suñu jiggaanee leneen feneen day boo yeexee maanaam nit ki mën a dox ba càgg mu génn ci ci ci yoon wi te du ko yëg loolu lu kon mbir la mu moo xamante ne kon moo mataleer la xam naa ci ci ci tënk maa ngi sant ñëpp tey jéglu maanaam du ne nag li may wax dama koo xam wala dama koo gën na xam waaye jamono yëngu na kenn ku nekk ci noonu lu mu xam néew néewoo bari war na koo jàllale gaa yi yaakaar naa ku dégg li ma wax ci nit ki ni mu bindoo tërbiyee ni ni mu mu mu mu jafee yaakaar naa kon du ne rek képp ko dé déggati mu ne day tërbiya ci nga yaakaar ne mën na ko waaye yi kon aaja na kon gëstu boo baax a baax te la ca gën a nëw nëw ci woo daal mooy jëfandikoo tur yàlla te tur yàlla ba mu doon lasaar ba mu doon turu jinne ba mu doon talsam nay doon lu kooku na nga ko wóolu ba soo amoon million am sa koppar ci ci sa bopp lal jox ko waaje dénk ko ko mu lay gën a wóor dénk ko koppar ci ci ci for ba yaakaar naa loolu daal su amee ngëlëmte li nga xamante ne ne amoon na dana da dana deñ te it ñu moytu lool ñi nga xam ne dañuy wax loo xamante ne Sëñ Tuubaa daawu ko wax mag ñoom tër bi woon daawuñu ko wax kuy wax di tudd jonte yu tedd ya yu mag ya ngaan ah jonte sàngam day ci man lay naane te déedéet ab yonte moom mën a su ko dab mukk ci àdduna saxaaba yi sax mën a su leen a jege waxuma laa nag di dab ab yonte kon loolu ku jëfandikoo am xel am am lu ci bu leer xam nga ne kat ab yonte moom suñu baa ma ko jagleel nam mel te mooy ki gën a kawe ci jamonoom beneen waaye mënatul a dikk lu mu jëf jëfit mënta jëf ba mel noonu kon ñi ñu ngi sant bu baax a baax te di santaat Modou Diop moom mu nga xamante ne moo tax ba jotaay bi mën na am lépp loo xamante ne ñoom tele ci maa ngi koy jégalu wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu